ñawaat nañ tey jii ci jataayu nafar yi ñu tàmm am guddi ajuma gu nekk tey jii ci guddi ajuma fukki fan ak juróom ci ndeyu ñu koy amale fii ci masjidu nuur di ko amee ci téere nitu yàlla ku màgg kii ñuy tuddee docteur Saïd Hawa téere bi mu tuddee jundullahi thaqafatan wa axlaqan te mooy soldaaru yàlla bi lan la war a xam waaye soldaaru yàlla nan la war a mel booba léegi ñu ngi ci nan la war a mel ba toll ci juróom juróomeelu jikko bi ndax dafa dem ci alxuraan tibb ci jikko yi nga xam ne moom la borom bi wax ne ñooy ñooy jikko yi soldaaram yi ñu nekk juróomi jikko jamono yii yëpp ci jikko yooyu lañ nekkoon di ko nafar tàmbalee ko ci jikko ji njëkk ja te mooy nangoo féete nangu péete nangoo féete ak yàlla ak yonent bi ak jullit yi ba ci topp mooy fexe ba bëgg yàlla bëgg la ba ci topp nga nooy ci jullit yi ba ca topp mooy nga dëgër ci ñi dul jullit juróomeel bi ne nga nangoo jihaad fii la ci jihaad jooju lañ toll muy bunt bu yaatu moom itam tàmbali nañ ko ci ñaari alxames yi jàll tey jii ñu ñëw gannaaw bi ñu ñëwee ci tomb bi njëkk ci xeetu jihaad yi ndax dañu waxoon ne jihaad yi ay xeet lañ ba ci njëkk mooy jihaad ci sa làmmiñ wax nañ ci lu bari ba tey ñu ñëw di tënk li ñu waroon a wax ci yooyu mooy wa idan yatasalsal al jihaadu lisaani alal ala shakli taali kon jihaad ci sa làmmiñ ci ay étape lay jaare am na ñetti étape étape bu njëkk bi mala mooy balaaxun wa bayaanun wa iqaamatu xujjatin wa tibyaani xaqaayiq bi ci njëkk mooy nga jottali kàddu borom bi tabaraka wa kàddu borom bi ku ko jottali jottiwaale kàddu yonent bi ndax yonent bi mooy firi kàddu borom bi tabaraka wa waaye nga nga wutal lay li ngay wax nga fexe ba ki bokkul ak ki deful li ngay wax du am lay mooy iqaamatu xujja nga leeral dëgg ba mu leer nañ nga xam ne ku ku ku ko ku ko gëmul itam rëy a tax waaye du xel ñaareelu étape bi mooy mawisa wa tadkir wa taxwif min allahi bi lutfin wa shafaqa gannaaw ñi gëm yàlla nga dellu si ñoom te mooy ñi gëm yàlla ba pare te sàggan di def ay rëcc-rëcc ñooñu da nga leen di waar fàttali leen li ñu fàtte woon ragal loo leen yi ñu bëgg ñeme te waruñ ko ñeme waaye danga koy def nag bi lutfin wa shafaqa da koy def ak yërëm leen da danga koy def ak yéene leen ñu ñu mel ni nga bëgg waaw ndax euh, du rekk dangay mooy li doc li oustaz rahmatullahi alayhi euh, Alioune Guèye daan wax kenn waxuñu kenn sant ñu ñu wax dëgg dañ ñoo sant ñu woote ci dëgg waaw wax dëgg rek yomb na ñëpp mën nañ ko li jafe mooy woote ci dëgg woote ci dëgg nag dafa am stratégie moom moom ci lañ nekk ba ba léegi kon ñaareelu étape bi mooy gannaaw bi nga leeralee dëgg joxe firnde yu rëy yu wér ne lii mooy dëgg ba nga xam ne ku ñëw rëy tax léegi ñi ñëw nag dañuy ñëw ba ci yàgg ñu bëgg a fàtte wala ñëw ba ci yàgg ñu bëgg a sàggan doomu aadama dafa dafa faible ñu commencé def ay rëcc ñooñu dañoo laaj ku leen fàttali dañoo laaj ku leen waar waaye dañoo laaj ku leen tiitloo ci bak bàkkaar yi ñu bëgg a ñeme waaye da koy def bi lutfin wa shafaqa da koy def ci ci ci ci ci kii boo xam ne ci façon boo xam ne moom day yëg ne da nga koy yéene jàmm waaw ndax ki ngay woo boo ko yéenee jàmm dana dana ko xam ndax li nga li nga lépp loo man pour mu def li nga bëgg mu def ko da da koy def ba ba mujj mu defee ne sax da nga ci am intérêt waaw ni ko loolu la ko yonent bi daan def salaasam yonent bi ne maa ngi nii laxasu laxasu leen ci ndigg ngir bañ ngeen dem safara waaw comme ku ku ku dem dëgmal safara bëgg ca daanu nga daw dab ko laxasu ko ndax mënatoo ko ay wax rek doyatu soo waxee du bàyyi da koy laxasu ba gàllankoor ko loolu mooy yéene yéene ko mu mucc loolu la yent bi daan def loolu lañ bëgg nga jàng ko ci yent yàlla bi ci muddi mooy ida kaana musliman an naftahu an ah, ah, bu dee jullit bi nag moom dañuy léeg-léeg ñu ñu ñu xumbal nag ñàngal tuuti parce que xas ni ñoom xas ni nekk jullit ba pare waaye wa in kaana su boobaa kat zimi wanta ah, kooku booba baqay naa fi xududil jidaali billati hiya ahsan kooku moom dañuy naxanteeg moom rek dañ koy naxanteeg moom li anna allaha azza wa jal qaal wala tujaadilu ahla alkitaabi illa billati hiya ahsan bu ngeen di waxtaan ak wa ahlu kitaab bu da ngeen na ngeen na ngeen na ngeen ko rafetal na ngeen ko def na ngeen ko def ni mu gën a yem ni mu gën a yelle bu leen ci jublu rek rek yey jublu leen ci ñu ñu ñëw ci dëkk gi ci loolu nga gisee ne euh, an almarxalata althalisa marxalatu fisaam laa yasixu an tabqa lana fiha ma asxaabiha wa naani almuslimin alaqa muxaalita donc ñetteelu tomb bi nag moom mooy nag ah léegi nag jullit bi teg comme def na choix ba pare nag da nga koy wax nag mu mu assumé nag waaw jullit bi nag moom kenn du naxantee teeg moom ndax xas na def choix ba pare léegi nag da nga koy wax mu assumé da nga ko am assumé loolu moo tax ibnu Mas'ud radiallahu taala anhu wax ne yont bi nee na jaahidal jaahidul munafiqina bi aydikum fa in lam tastatiu illa an takfahiru takfahiru illa an takfahiru fi wujuhim fakfahiru nee na na ngeen xeex ak naafiq yi na ngeen xeex ñoom na ngeen jaamaarloog naa feqi ci seeni loxo su ngeen munta jaamaarloog ñoom ba ñu bàyyi li ñuy def même bu laajee ngeen xumbal ñangal seen kanam ba ba ba yëg na mer ngeen da ngeen ko def cest à lépp loo man daal pour naafiq bi xam ne xàmmee nga ko te li muy def nii jaaduwul na ko def yonent bi nee na radiallahu taala anhu wa alihi wa sallam lam lama lama waqaat lama waqaat banu israila fi lmaasi nee na bi banu israil commencé di jalgati nahathum ulamaahum seen borom xam-xam yi ñëw aaye leen falam yantahu ñu bañ waaye teewul fa jaalasoohum ñu continuer di toog ak ñoom wa ñu continuer di lekkandoog ñoom wa shaaribohum ñu continuer di naanante ak ñoom cest à leen dagguñu leen gàddaayuñu leen merewuñu leen berewuñu leen a ah, fa daraba allahu taala quluba baadihim bi baad yàlla daal di daal di leen jàppe comme ñu nekk benn wala anahum ala lisaani daawud mu rëbb leen yàlla jàpp ne benn lañ parce que ki bon te wanuloo ko ne sa mbon gi mën naa yàq suñu diggante de mbon gi naqariw la malheureusement nag loolu jullit yu bëri ñooy tàmbali jullit yu bëri ñoo bi léegi ci di maslaak mooykatu yàlla bi mooy di maslaak ko bon ki ba nga xam ne mbonam gi du ko yàqal dara ci seen jëflante yi loolu loolu da koy da koy encouragé bon gi waroon na ko bon gêné wu ci jëflante ak jullit su ko defee nag soo fekkee ne yow mbonu waa ji yàqalu la dara ci sa relation ak moom boo watul nga mel ni moom boo watul lu ñu ko mbugal teg la ko ah loolu leen di wax attention loolu leen di wax nee na yàlla neen dafa jël seen xol yi dugal ko dugal ko ñu mel ni kenn ñu mujj mel ni ñu bëggante ñu mel mujj mel ni kenn mu fa laanoom ala lisaani daawud mu mu rëbb leen wax yant yàlla rëbb daawud ne la rëbb naa yant bi ne laa walladi nafsi bi yadi xatta tatatiruhum hatta tatruhum ala alxaq atra atra nee na maa ngi giñ ci sama borom bi nga xam ne sama loxo sama bakkan ci am la nekk seen responsabilité day engagé wu feek taxawu leen temm ci ñu xam dëgg feek forcé wu leen leen ñu nangu dëgg donc dangaa war a forcé ñi nekku ci dëgg ñu nangu dëgg sa responsabilité door a wàcc sinon da nga sa responsable day engagé wu ci defkat yu bon yi ah loolu lu jar a bàyyi xel la kon euh, ñun kenn sant ñu ñu baax dong dañoo sant ñu ñu baax ba pare sant ñu ñu jàpp ci loxo ñu yàq ndax feeg ay yàqkat a ngi fi nekk mbaax day gën a jafe feeg ay yàqkat a ngi fi nekk mbon day day xememu boo ba boo gisee jamono ji ni mel nii léegi li tax baax jafe mooy bon dafa yaatu te mbon yàqalatul kenn dara parce que wax dëgg yàlla li gën a néew ci li mbon waroon a yàqal ki bon mooy mu ñàkk dara ji ci kër ñu baax yi wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla li gënoon a néew ci li dal ki bon ba mu découragé mooy mu ñàkk daraja ci kër yu baax yi mais léegi ñu bon ñu ñoo ëpp daraja ñu baax ñi ci kër yu baax yi loolu kenn comprendre kenn mënu xam loolu lan kenn mënu ko xam kenn mënu xam loolu fii ne boo demee ci kër yi ñu tuddee këru diine fokkat yi ñoo fa ëpp daraja ñoo ñoo fa gën a xëcc ñoo fa boo bu ngeen fa dajee ñoom lañu njëkk recevoir jataay ba ñuy togg yow di ñoom duñ ko togg yow ñoom la ñuy wan ne ci kër gi lañu dëkk jarbaat lañ fi loolu kenn xamul lan la loolu kenn xamul la loolu kenn xamul lu doon loolu indi na problème yu bëri ci dëkk bi tax na ñu bëri tayal ci baax léegi ñu bëri tayal ci baax parce que baax mayeetu la dara bon xayeetu dara loolu lu neex a comprendre parce que xam nga wax dëgg yàlla am na loo xam ne jarul jarul sonn pour gëstu ndax jaaru na yoon wala jaaru yoon xam nga koo xam ne bu bu ndaje foo dajee mooy mooy nekk porte parole bu ndajee lislaam amee mu nekk loolu mënut a nekk loolu mënut a nekk loolu erreur bu ko gën a rëy amut ci àdduna loolu kilifa yi diine yi ko def def nañ erreur bu rëy rëy waaw waaw koo xam ne bu fot fokka fokka yi daje mooy seen porte parole nga nga nga gëddëw nga dem ba diine daje mbaax daje nga jox ko mu nekkaat porte parole am xam nga loolu c'est compliqué kon il faut ñu. ñu won ñu bon ñi ne da ngeen a bon il faut ñu won ñu bon ñi ne seen mbon gi xañ na leen li li ñu baax am duutu leen xëjjati ci mbaax baax ñu baax waaw waaw léegi nag yéenay seet wax nañ leen li li ngeen nekk wax nañ layal nañ leen ko ba mu leer ba mu leer nañ ñi di ci bon ngeen nekk léegi nag ngeen tànn bon kon da ngeen di assumer cest à da ngeen di dangeen di ñàkk li ñu baax war a am da ngay da ngeen di ñàkk taraanga ñu baax ah bu ñu ko deful du ko defee lii dana ñett dana jur ñetti observation gannaaw bi ñu bi ma tënkee jihaad ci làmmiñ ah waaw gannaaw bi ñu ko tënkee jihaad ci làmmiñ boo wanee ne ñetti étape la am ah, léegi am na ñetti observation yuñ mën a yuñ mën a def ci ki nga xam ne dafa fas yéene jihaad ci làmmiñam obstination bi njëkk bi mooy indama naqumu bi amaliyati tabliq alayna an nabda bil ahami fal muhim soo jógee di jottali diina yàlla ji tàmbaleel ci li yi gën a jàmp tàmbaleel ci yi gën a jàmp julli ji li leen war nekkul benn degré yiñ aaye li leen aaye nekkul benn degré kon yow mi leen xamal yi leen war ak di leen xamal yi yi leen aaye tàmbaleel ci yi gën a jàmp loolu danga ko war a xam parce que ñàkk cee tàmbali mën naa tàng nga sonn te doo jëriñ ndax su fekkee da juutal liggéey bi doo am résultat mukk waaw kon dangay tàmbalee ci yi ëpp solo nabda bil aqida qabla al ibada nit ki bala koo wax nu muy jaamu yàlla da ngay fexe ba mu gëm na yàlla am na pare ku gëmagul ne koo xam ne gisin bi am ci yàlla leerul nga bëgg koo wax nu muy déggalee yàlla loolu fi nga tàmbalee baaxul fi nga tàmbalee baaxul fi ngay fi nga war a tàmbalee mooy fexe ba mu gëm yàlla ni mu ko war a gëmee ba mu wóor ko ni kii mooy yàlla kii laa war a déggal nga door ko wax nag nu mu koy déggalee. kon loolu moo tax lax Laxdari wax ne awwalu maa mu alal ñu ne ha mu ne tasxihu yi li njëkk a war mag mag te mooy ki ki jël boppam a charge waaw ndax lu jiitu ngay nekk mu mukallaf say wayjur ñoo rek ñoo res étape boobu ñoo koy lay loo ca def ja jubadi say say wayjur a koy lay waaye boo xasee mat mu kalaf léegi jël nga sa bopp en charge léegi nag comme da jël sa bopp en charge tàmbalee ci tàmbalikaay ba mooy demal xool ba xam ni nga gëme yàlla baax na am déet parce que gëm yàlla gi nga jëm gëm lu jiitu âge boobu dañ la koo sax dangaa fekk sa bàyyi nekk jullit nga nekk jullit mu nekk chrétien nga nekk chrétien mu nekk jullitu murit nga nekk murit jullitu murit mu nekk jullit tijaan léegi nag mu kalaf nga xoolal ba xam noonu la parce que boo demee yomal xam dama sama dafa nekkoon loo foofu du la ci génn foofu loo fa nekk da nga ko lay yaa koy lay sa boo dee muritu jullitu murit da nga wax lu tax boo dee jullitu tijaan da nga wax lu tax boo dee chrétien da wax lu tax kon nag na leer tàmbali tàmbali bi mooy xoolal ba xam ni nga gëm yàlla noonu la bala déet il faut nga contrôler ko acca su ko defee boo jógee ci xam yàlla ji nga war a jàmm nag nga wax ko nu ñuy jaamu yàlla wa bil ibadati qabla manajil xayaat donc li ñuy tuddee les pratiques cultuelles moo jiitu nag beneen ibaada bu yaatu mooy nga déggal yàlla ci ni ngay dundee dangay ngay yàlla ci ni ngay jullee door a déggal yàlla ci ni ngay dundee parce que yow dangaa war a dëggal yàlla fépp ak ci lépp min al mahdi ila lax fépp nga war a dëggal yàlla ak ci lépp waaye nag li lay jàppale ci loolu mooy nga nga nga dëggal ko ci lii tax nga mën koo dëggal da koy déggal da nga koy njëkk a ci li lay jàppale ci déggal ko mooy julli ak woor ak dem mbàkkal ko yooyu moo lay jàngal nu ñuy déggale yàlla ci lépp moo tax boo boo ko bu boo ko ratee da am problème boo ko dégg boo ko ra boo ko gañee moom dong itam am am problème acca kon ba ci wàll ba ci détail kon foofu wax nañ la su fekkee da ngay woote ci diini yàlla ji da ngay jottali diini yàlla ji il faut nga xam priorité wax dëgg yàlla wax naa joxe naa ci misaal ma réew moo xam ne bu bilaal bi ne hayya ala mooy kaay leen julli si bët bu set heure bu heure julli bu nekk bilaal dana wax ba ci àgg mu ne hayya ala salaa kaay leen julli si hayya ala falaaxi kaay leen ci lii régler seeni problème sénégalais yi bu ñu ko déggee juróom-ñaar fukki séné téeméeri sénégalais yu nekk juróom-ñaar fukki du yëngal seen yaram sax du leen tax a bàyyi lañ doon def duñ ci duñ ko déglu sax bu ñu gàmbaaree ba jàmbaar fanweer bi ñooy nangoo dem ci jàkk dëkk bu mel noonu nga bàyyi juróom-ñaar fukki yi nga xam ne ñoom fañ lañ doon def bàyyiwuñ ko nodd gi yëngalu leen ñëw fekk fanweer ci biir jàkk ji di leen xatal di leen budd xatal ba duñ bëggatee ñëw ci yi loolu du du xeeg ma loolu ku ko def ina tu n'as loolu ku koy def boobu boobu orientation ku ko am tu n'as ndax téeméeri nit yu waroon ñëw ci yi fanweer yi dong nga ñëw juróom-ñaar fukki nangu ñoo ñëw nga bàyyi fa juróom-ñaar fukki ñëw ci fanweer yi di leen sonal ci di ñuy nekk ci yàq yi ba ñu découragé kooku koy def amuloo benn xekma ci li ngay def loolu du priorité yow kay fexeel ba ñu ëpp ci dëkk bi ñëw rek bu ñu julli see pare ñu doon xool ni ñu rek lay jàkk yi parce que ki xas nga nangoo ñëw jàkk yi donc mbiram yombat yombatoo la lijjanti ki nangoo ki xasa ki nga xam ne bu ñu ne hayya ala salaam mu bàyyi lam doon def duutu ñemee ko ba ñëw jàkk kooku soo ko waxee luy tax tiyaabam jokk ja bari ci jàkk yi dana ko def soo ko waxee nañ ko waxee waaw boo ko waxee ne ko nag yow mosuloo xam dara doo nitu dara jaruloo ngay jàkk yi mu waay mu bàyyi jàkk yi fekk yow yaa tax mu bàyyi ko léegi mboolem juróom benn yi nga xam ne dañu bind xadiis ba mu des Malik jële nañ ci Ibnu Abbas mu ne yonent bi nee na anna rasulallah lama baasa Muaaz ila al Yaman yonent bi bi mu taxawalee état islamique dafa commencé di yónni ay ay ndaw ñuy dem ci gox yi di fa yóbbu diini ji ku mu formé ba xam ba wóolu la rek yabal la ci gox Yaman bii tey lakkal huit euh, américains yi Muaaz ibnu Jabal moo fa demoon Yaman bi Yaman bi fii moo lëjal américains yi ma nga fële ci Madiq ne murid bi ne bateau américain bu fa jaar bëgg yóbbu armée Israël mu daanu nekk réew yaman boobu yant bi nee na ba mu yónnee Muaaz yaman dafa ne ko innaka taqdimu ala qawmin ahli kitab yaa ngi dem ci ñoo xam ne dañoo jàng duñu ay illettré da dañuy jàng kon nag fal yakun awalu ma tad'uhum ilayhi ibadatullah léegi boo demee li ngay njëkk a def fexe ba ñu ba ko mooy ñu nangoo déglu yàlla donc ñu nangoo déglu yàlla wala ñu nangu ñu nangoo ñu xam yàlla nanga tàmbalee ci woo leen ci ñu xam yàlla ak nangul ko fa ida arafuhu buñ xamee yàlla fa axbirhum anna allaha farada alayhim xamsa salawatin fi yowmihim wa laylatihim léegi nag nga doon leen a wax li yàlla bëgg ñu def ko te mooy lu mu néew néew nañ julli juróomi yoon ci benn ci vingt-quatre heures bi diggante bëccëg beeg guddi gi nañ ci julli juróomi julli wax nga leen yàlla war nga leen ñu xam ko nag mu ne mooy yàlla léegi wax leen li yàlla bëgg ñu def ko julli la njëkk la njëkk a sant juróomi yoon ci guddi gi ak bëccëg bi fa ida arafuhu fa axbiruhum anna allaha farada alayhim boobu wax naa ko waaye fa ida faaluhu fa axbiruhum anna allaha farada alayhim zakat zakat tuqad min amwalihim wa turaddu ala fuqaraihim soo leen santey julli ñu nangu ko nee leen léegi nag yàlla da cee teg ngeen di génne azaka mooy am na som boo xam ne ku ko am ci alal war nga caa comp jox ko ñu amul dara muy asaka képp ku am asaka danga war képp ku am lu mat nisaab te mooy ku képp ku bokk ci borom alal yi nisaab mooy somme bi nga xam ne lislaam nee na ku ko am teg ko ci bërëb ren ba déwén yow léegi ci borom alal yi nga bokk kon nag da nga ciy comp jox ñu amul dara Euh, nisaab boobu euh, diggante wurus la ak xaalis euh, léegi nag malheureusement wurus bi ak xaalis bi no yematuñ dara yematuñ bu njëkk boo amee ñaar fukki dinaar wurus mën nga ci am ñaari téeméeri dërëmu xaalis nguur waaw boo tax booba pour nga am génne asaka benn nga am ñaar fukki dinaar wala nga am ñaar ñaari téeméeri dërëm alal am bu am bu mënee jënd ñaar fukki dinaar wala mu ñë mën a jënd ñaar téeméer dërëm asaka war na ci léegi nag ak jamono xaalis di di di daanu wurus di yéeg ba léegi àndatuñ moo tax boroom xam-xam yi foog ñu def gëstu wax léegi fan la ñuy nattee ko ko am alal ndax ci ki ki am lu mën a jënd ñaari téeméer dërëm wala ki am lu mën a jënd ñaar fukki naar wurus boo jëlee wurus bi dana ëpp un million un million daanaka dana jege deux million pour nga am pour nga bokk ci ñi am alal da nga am lu daanaka lu jege 2 millions yoo xam ne da leen di teg ci béréb ren ba déwén di faj seen soxla te laal loo ko kooku la charia jàppandi fa bu dee nag da nga koo natt ci xaalis mooy cent 400000 euh, daanaka du ko du ko du ko du ko lu muy ak lu mën a doon dana mat 400000 300000 et quelque xam nga diggante 300000 et quelque ak 2 euh, 1 million et quelque ça dafa dafa wuute trop. moo tax borom xam-xam yi def ci istaat ñu xool ban ci ñaar yi la ñu war a adapté comme euh, comme nisab bon bu dee doctor Youssouf al Qaradawi nga xam ne moo gën a wax dëgg yàlla ba ba muy génn àdduna moo mooy mooy ma al marja al awal ñu ëpp ci jullit yi ñoom lañ ci moom lañ doon déglu seen diine moom wurus la proposé mais am na yeneen borom xam-xam yu yu proposé xaalis ñoom lu tax ñu wax loolu dañ wax ne xaalis bi hadis yi ñëw ci nisaabu xaalis ñoo gën a wér hadis yi ñëw ci nisaabu wurus bu fekkee dañoo xool rek wérub hadis bi ñi ko wax ñi ko jële ci yonent bi ñi wax ñi ñi ñi wax ne yonent bi nee na nisaab mooy ñaari téeméeru dërëm ñoo gën a wax dëgg ñoo gën a bari lu ñuy wax dëgg ñoo gën a mën a wax dëgg ñeneen ñi ñoo kon hadis yooyu ñoo gën a wér ñoo gën a wér waaye ñaareel bi mooy bu ñu jëlee wurus bi ñu bëri ci nit ñi duñ génn asaka te bu ñu jëlee xaalis bi ñu bëri dinañ génn asaka te loolu moo ëpp yërmande ci néew ji doole yi kon loolu moo tax ñun bi ñu bi ñu tànnee comme ay conseil de conformité charia ci finance islamique bi banque PAMECAS doon def dañu proposé asaka ñu jël ñu koy nisaab bi ñu koy natt ci xaalis dañ ko def ci wurus loolu parenthèse la kon Muaas ibnu Jabal yant bi da ko wax ne ko soo demee na nga tàmbalee ci xamal leen yàlla bu ñu demee ba xàmmee ko nga wax leen li yàlla bëgg ñu def ko te loolu la ca jiitu mooy julli juróom suñ nangoo julli juróom nga wax leen nag léegi ñi am xaalis yi ñoom nañ génne asaka te mooy bu ñu amee nisaab ñu génnee deux virgule cinq pour cent ci alal ji at mu nekk acca fa ida atu fa ida ataawu biha fa xud minhum wutuqa karaim amwalihim wattaqi daawata almazlum fa innahu laysa baynahu wa bayna allahi xijab mu ne su ko defee su fekkee nangu nañ ko nag na nga génne asaka ci ci alal ji gën a rafet bu dee dugub la tànn ko ci dugub ji gën a rafet bu dee gerte ci gerte gi gën a rafet su ko defee na moytu nag tooñ wattaqi daawatal mazlum gouverneur lañ wax de gouverneur nañ ko na moytu tooñ citoyen yi na moytu dem sukkandiku ci sa daraja di tooñ soo ko defee maa ngi lay xamal ne fa innahu laysa baynahu wa bayna allahi xijaab ñaanu néew ji doole amul kiraay buy ñaan muy dem waaw waa moo tax léegi tooñ néew ji doolu wóoru soo ko defee mën ngaa xëy dugg ci garaawali koo xam ne doo xam lu la ko teg fekk daf laa ñaan yàlla <coughs> ñaan yàlla ak ñaanal yàlla du benn <coughs> maa ngi jégalu mu ne ibnu Mas'ud maa anta bi muhaddis bi muhaddis qawman xadisan laa tablugu uquluhum mu ne ko bu leen wax lu ëpp seen xel yi boo demee bay wax ak ñoom bu leen wax lu ëpp seen xel yi soo ko defee lu leen dal yaa ko yaa leen ko teg ndax mën nañoo weddi lu ñu waroon gëm ndax ni nga leen ko waxe ndax wax loo leen wax lu ëpp seen xalaat ñu wedd ko ñu wedd ndax ñu jural leen position boo xam ne yaa leen ko teg bu ko def noonu illaa kaana li baadihim fitna loo soo ko defee ñooñu mën nga leen indi fitna mën naa tax ñu weddi lu luy dëgg kon observation bi njëkk ci ki nga xam ne dafa mi bëgg a mécc woo jottali diine yàlla ji observation bi njëkk mooy mu xam priorité ñaareel bi mooy jarat aadatu aadaa illaahi an yushawwihu sumaata duaat ila allahi fi nazari almuslimin dafa bokk ci ñuy xeex diine ji ñuy yàq deru ñuy jàngale diine ji waaw loolu ñu bàyyi ko dafa bokk ci liy xeex diine ji yàq deru ñuy jàngale diine ji parce que ñaari diine ji kenn ñemewu ko noonu kenn du ko ñemee songu direct soo ko bëggee dangay ngay jaare ci ñi koy jàngale fexe ba yàq leen boo leen yàq rek diine ji yàqu kon nag yow bu leen yombalal loolu yow daayib bu leen yombalal lan mooy buleen yombalee yombalal loolu mooy del def lu leer na la nit ñi compre mën a comprendre ba man laa layal soo ko deful soo fi defee yir lëndëm bu ko bu ko noonu lislaam yi firee firi bu négatif dañ koy gëm parce que yaa deful lu leer kon yow yow mi jot diini yàlla il faut nga nekk ku ñu mën a comprendre bul nekk koo xam ne loo wax tey bu subaa nga weddi ko bul nekk koo xam ne li ngay jàngale ak li ngay def noróogu dafa dafa indi complication dafay jaxase ñi ngay jàng kon il faut nga leer ba nga xam ne lu ñu la wax te du dëgg ñoom ci seen bopp dañu xam ne du dëgg ne naa ah, non du dëgg loolu kon mooy deuxième observation mooy yow mi bëgg a jottali diine yàlla del def lu leer del dem fu leer am na benn kilifa kilifa diine gu mag bu mu dem doom ji ñëw fa xam naa am na lu mu li lu mu doon lijjanti mu ne ko diw mu ne ah mu ne ko boo bokkee foo xam ne boo juddoo ñëpp yëg ko soo faatoo ñëpp yëg ko diggante bi loo fi def yëg nañ ko même buñ gookul <laughs> loolu rek la ko wax noppi te boobu dafa doon def ay jalgati di ko di mu ne ko diw jaar ci turam ñëpp mu ne ko bu fekkee dangaa bokk foo xam ne boo juddoo ñëpp yëg ko boo dee ñëpp yëg ko diggante bi loo fi def yëg nañ ko même buñ ko xul loolu mooy transparence loolu da nga ko war a xam affaire yi nëbbu tudd ko réglé waaw di ko li koy réglé mooy def lu leer rek boo ko defee lu jàppale ñi ngay jàngal ndax loolu mooy tax su ñu waxee ci yow safaan bi ñu mën ko weddi te itam ku wax ci yow dara dañu xam ne da dañu xam ne daf laa bañ rek wala daa bañ diine ji rek su ko dee doom am benn problème waaye soo fexee ba ba ñu taqale sa personnalité ak personnalité diine ji yow yow fuuti nga moom waaw moo tax parce que bu fekkee da nga jub wane ak njub wane kalaarte ba ba ñu gis yow diine ku la tudd dañuy wax ne diine ji la visé visé wu la yow duñ ko nangu duñ ko nangu. gis nga jamono yi xew-xew yu bari fan yi rek am na defe naa benn soxna bu def ki lu nekk mu saa mu saagu ko sëriñ daara yi sëriñ daara yi mer euh, ndax waaw ndax xew-xew bu xew bu ñu wax ne sëriñ daara da ko def xam nga loolu tam si compliqué moo tax yëf yomb ndax itam boo bokkee ci groupe boo xam ne dafa am ñuy jëlgati waaw ah, léegi bu kenn te te yéen dañ leen a xiif dañ leen a xiif léegi bu kenn jalgatee dañuy wax ne ñi jalgatiwul ñëpp nii lañ mel loolu la ndaw si def looloo merlew gaayu ba bañ fàttee jalgati waa ji loolu tam du solution parce que waa ji dafa jalgati waaw ah, donc loolu si compliqué moo tax def lu leer daal faratal la ah, nangu dëgg itam nangu nangu dëgg farata waaw moo tax euh, kilifa yi fi nekkoon fii ku ma sa jalgati dañ lay dañ man xam naa am naa kilifa koo xam ne bi kenn njabootam defee tooxi doona moo woolu gendarmerie moom moo woolu gendarmerie gendarmerie ñëw def constat war ko war a war a léegi la waa dëkk bi door a daje ñaan gendarmerie ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko parce que ndax kii njub njub rek mën na lii mën naa xew te du ngeen ko yëg mais daa jub léegi nag comme comme def na sacrifice bi ñu loolu non parce que am na xam nga Sénégal day am na yu bëri yu fi yu nëpp nëppal te que loolu mooy mooy xegma tam mooy xegma parce que ka giraawal gam defoon mën na ko yóbbu kaso war na ci mën a dugg kaso waaye bu duggoon kaso euh, boo bootu la mu doon yàq moo gën a mooy gën a garaaw euh, dégâts bi mu defoon moo tax euh, bi bi way juram tànnee boole ko mu nga xam ne moo jël initiative booleel ko boppam ba ma di ñëwee ba ko waa dëkk bi jëlee waa dëkk bi ñoo ñaan gendarmerie ñu baal ko donc loolu euh, gis naa gis naa ko euh, donc euh, voilà yu mel noonu dafa fekkee naa fii benn kilifa aussi bëgguma ko jarumay tudd turam génn naa àdduna kilifa gu mag la sama kilifa la aussi benn benn waa këram da doon jalgati jalgati mooy di jël turam dem ci taalibe yi di laaj xaalis di te laaj xaalis di santaane ay ay sarax <laughs> sarax ay xarak ay nagak lu ne mu santaane ko ba di leen dig ba gaa yi sonn ñëw boole ko sëñ bi kanam bi ko sëñ bi toroxal fanam fekk waaw mun leen jàppale yóbbu mu ne moom moo yi waxee ba mu ko mu wax lay mu xam ne moom la moo yónnee ñu wooyu polis police a ñëw jàpp ko waaw bokk na ci la wax keroog képp ku la wax ne sëriñ diw moo digle sarax bi day fen man du ma digle sarax parce que loolu yëfu këram la keroog wax na ko waaw nee na man duma ma digle sarax nee na ku la ko tey sëriñ bu mag la ci Sénégal ku kuñ daan kuñ daan yaakaar ci wàllu ñaan la waaye keroog loolu la wax mu ne moom du digle sarax donc voilà loolu tam beneen parenthèse la pour wax ne gars yi digle sarax yi aussi <laughs> ñaare ay pexe la pour bëgg jëriñoo ni loolu mooy. loolu mooy ñaareelu observation bi waaye ñetteelu observation bi mooy inna amaliyat al jihaadi al lisaani taqtadi dirasatan lil makaan alladi yatimu fii wa taqtadi maarifat maarifatan bi marakis dalal wa jumlat al inxirafaat mooy ku bëgg a jottali kàddu diine ji foog nga xam fi ngay jottalee fan la ñi ngay jottali ñan lañ lan lañ gëm lan ay seen culture loolu soo ko xamul tam du sotti parce que situation da ngay dem ci benn réew moo xam ne lépp fa nekk comme fu mel Sénégal am na ay athée am na ay communiste am na ay julit am na ay lu nekk fi nekk loolu sooy soo fi jottali kàddu yàlla te soraale woo ko man ngaa yaakaar ndam foo ko foo ko ñàkke kon loolu ñu bàyyi xel ne mooy observation bi ñetteelu observation mooy foog nga xam ñi ngay waxal ñan lañ fi ngay waxee fan la bi ñuy jàng euh, naa xam-xam Sénégal euh, téere bi ñu doon njëkk jàng ñu koy wax taalimul mutaallimi tariqa tariqa taalimi wala tariqat taalim teewlootuma nu mu ci ñaar taalimul mutaallim mooy jàngal kiy jàng nan lay jànge jàngal kiy jàng nan lay jàng téere bu ama am solo la daf lay wax nooy jàng euh, téere boo xam ne euh, ñun euh, bari na ñu génn ci daara ji seen njàng amal leen téere boobu moo tax dafa dafa daan wax ne da bokk na ci li ma ci marqué te ma pratique ko te mu jëriñ ma tam a tax mu mokkal lu bari mooy boo buggee mokkal téere bi ngay jàng soo jëlee bindu tey bi jàng ko ba mu ba yëg ne man nga ko da ngay jàng bindu dem bu juróom yoon bindu bërki dem ba nga jàng ko ñeenti yoon bi ko jiitu ñetti yoon bi ko jiitu ñaari yoon bi juróom yoon donc fu bindu tey bi pare bi ko jiitu juróom yoon nga koy jàngaat bi ko jiitu ñeenti yoon bi ci toog ñett boo ko defee bu téere bi joxe nga mokkal ko waaw bari na téer yu mokkal bi ñu jàng kaw la loolu ci matat boobu lañ ko mokkal buy buy téere bi jeex nga koy mokkal donc lu muy benn waaye dafa li tax ma jël téere bi du lool li tax ma jël téere dafa am xasida bu fa nekk dafa xam ne laa tax filan sababal kalaami wa waqtahu wal kam wal makaana jamian laa tax filan sababal kalaami bul bul réere lu tax nga war a wax bul bul bul bul ñàkk a lu sabab nga war a wax waaw du du du nekk nga war a wax sababal kalaami wa waqtahu bul sàgganee waxtu wi nga war a wax nu mu war a toll wal kayfa ni ngay waxee wal kayfa wal kam lu toll nan nga war a wax wal makaana ak place yii yëpp soo ko sóoraalewul boo waxee soof nit soo koy sóoraalewul booy wax di soof nit kon loolu mooy eh, observation bi mooy foog nga xam ñi ngay waxal eh, loolu mooy lii mbokk moom mu def vidéo fan yi jàngalekat boobu suñ jarbaat boobu moom itam jama ju ñoon leen ko fan yi mu def benn audio bu am solo woo naa ko ba jot ko wax ko félicité ko mu wan ay xale yi mbokk yi ne leen léegi am na masala yoo xam ne vraiment dëkk Sénégal xam Sénégal yi ni ñu wuuteeg yeneen xeet yi nga ngay ngay ngay ngay ngay ngay jël question fii di ko posé naar bu nekk Arabie Saoudite pour mu tontu la ni ngay defee waa jooju loolu njuumte la parce que naar yi xamuñu ñi nekk Sénégal yi. loolu loolu ndax dañ ko waxaat dañ ko ba tàyyi nanguñ ko respecté eh, léegi ñoom ñoo ko commencé comprendre xëy na wala boog ñu ngi koy wax boog effectivement donc il faut nga xam ñi ngay waxal xam ni ngay waxeek ñoom dëgg du la koo ko jox mu jël ko du loolu leen ko joxee jël ko am na noo xam ne boo ko joxee kon loolu mooy observation yi mu des heure bi jot na mu des ñetti jumtukaay yi nga xam ne moom lañ mën a jëfandikoo pour jottali kàddu yàlla bi bi ci njëkk mooy nashrul kitab al islami mooy tasaare téere yi ñu taalif ci diine ji téere yu bëri lañ taalif ci diine yi nu ko fu gëstu nañ fa waaw waaye yu bëree bëri ci yi bind ci diine ji julli yëpp jotuñ ci preuve bi mooy xikam yi rek xikam yi may def yi ma doon def jàkk yi ba mu jeex ma tàmbali ko télé bi bëri na sénégalais yoo xam ne ñu ngi koy door a dégg téere boobu te pourtant téere bu fi yàgg la parce que mboolem suñu mag ñi tudd nañ ko seen taalif yi tudd nañ Ibn Ataay lay sakkat référé wu ci moom parce que moom moom wax dëgg yàlla nag ku ku bëgg xam yàlla nag di nga di nga jaar loolu la ko yàlla may ñoom ñëpp a ko bind tudd ko waaye man personnellement bi ma koy door a xam téere bi ma amoon mooy mu ngi tudd Igaasul Himam waaw Igaasul Himam la tudd téere bi maa ngi ko yor ba léegi moom laa jëloon pour jëm ko comprendre comprendre ma ci dara loolu mooy son problème moo te maa ñu bari noonu la ñu mel dañ koo jéem comprendre mu ñu teg ko kenn léegi nag eh, xéwal bi ci yàlla def mooy bi ñu tombee ci chara bi ci docteur Ramadan bu tiy def nga xam ne kenn mus sa def chara bu leere noonu kenn mus def loolu mooy ci tawfiq bi ci yàlla kon tasaare kër yi docteur Saïd Hawa bi jundulaay bi julli yu bëri jotuñ ko julli yu bari xamuñ ko waaw ah, même feeñ ko taarifee sax ñaare duñ ko yittewuñ ko kon yàlla mooy doxal rek nga tombe ci mu intéresse la de man la ca tombe ma gis ne man problème bi ma am mi ngi koy réglé ma ne kon teema ko koy teema jéem bokk ak jullit yi man tam moo tax sax du ma ko joxe joxe wu ma ko gëdd ak téere bi parce que gëdd téere bi man aw ma ko waaye ni ma ci toll laa laa leen di jox <laughs> donc waaye li ma ci toll laa joxe laay joxe xekkam itam noonu la donc parce que ay téere yu doy war la téere yu doy war ay nit ñu doy doy war la eh, docteur Saïd Hawa bi mu ngi bokk ci ixwaanu muslimin mais moo ci ëpp lu mu taalifi waaw moo ci ëpp lu mu taalif loolu laa jàpp parce que surtout xeetu taalifam ni muy taalife moom du taaliful ay du taalif ay téere yu ndaw waaw parce que dafa def dafa bind benn téere tudde ko Allah mooy yàlla donc téere bi da nga ko war a jàng pour xam yàlla bind beneen téere tudde ko ar da nga a jàng pour xam yonent yàlla moom bindaat beneen téere tudd ko al islam mooy da ngaa war a jàng téere pour xam la mooy islam mu dooral ñëw nag ci al islam boobu nag la ñëw indi ñetti asaas mu tudd al asaas fi tafsir al asaas fi sunnati al asaas fi fahmi nusus wa dabti qawaida mu ñetti asaas yoo xam ne benn bu ne ëpp na fukki tom fa tafsir bi rek fukki tom la ak ak benn def naa ko fii tafsir ci ñaari tali Grand Dakar ba mu jeex avant ñu ñëw fii jàkk yàlla daf na ma def loolu al asaas fi tafsir boobu li ko njëkk a wuutaleeg tafsir yi ci sama gis-gis man mooy dafa wax ci tafsir bi ne moom te li ci gën a yéeme mooy tafsir bi ci kaso bi la ko def moo tax xam nga tooñkat yàgg na yoo tooñ te duñ tooñ ko ne moom ci kaso bi la taalifi téere bi ci laa doon nettale li li ma ni ma yàlla booleeg téere bi wax naa ko fi ay yoon fii mooy téere bi dafa ne bi mu koy tafsir dafa dafa dafa dafa am na lu ko métti ndax amuloon possibilité taf jot tafsir yu bëri ñaari tafsir dong la amoon mooy Ibn Kathir ak Nasafi waaw wax naa leen fi ma jaar ñaari tafsir li tax mu jël tafsir mais dafa wax ne mu ngi sant yàlla parce que découvrir na ci tafsir bi loo xam ne jàpp na ne moom moo ko njëkk a te mooy xam na lu tax saar yi tegaloo niñ tegaloo nii lu tax Faatiha jiitu Baqara topp ci lu tax Baqara Ali Imran topp ci Nisaa topp ci te noonu loolu moom wóor na ko ne xam na ko de te loolu la lay won te biñ koy tafsir fii ñun ñëpp ñun ñëpp doon teewul saar wu ñu dugg danañ wax lu tax saar yu topp ci dala la koy wax ba nga nangu ko lim ko tàmbalee mooy alquran mooy Faatiha Faatiha mooy alquran Faatiha mooy alquran mu ne Baqara Faatiha doo lay firi. kese li des ci alxuraan yëpp baqara lay firi waaw faatiha mooy alxuraan waaw baqara moo firi faatiha waaw faatiha doo nga lay firi te ba nga koy tàmbali aaya bu mu egg dana la wax ban aaya lay firi ci faatiha loolu tafsir bu garaaw la boobu malheureusement nit ñi duñ ko waaye li des ci alxuraan yëpp baqara lay firi effectivement ñu koy def saar wu ñu dugg dana wax ban aaya lay firi ci baqara te dana la wax lu tax wax ko te da ko nangu donc mu def al asaas fi tafsir door a def al asaas fi sunna bi muy bu garaaw nga xam ne sunna la ci def euh, kii bind téere bu gën a garaaw wala bu garaaw te mooy al asaas fi fahmi nusuusi wa dabti qawaidi nan ngay déggee wax nan la ñuy dégg parce que alquran buñ ku ñu waajalul mënu koo dégg hadis yenti ku ñu waajalul mën ban yan xam-xam nga war a jàng pour mën a dégg alquran ci loolu def ci asaas donc kenn taalifewul ni mu te ci caso bi lañ ko lañ ko rey syrien la boo xam ne ci kaso bi la la dee donc dañoo dafa bëri ci ixwaan ñu mel nii moo tax man waaw nashul kitab jeex na waaw ay aka d'accord moo tax man bi ma gisee benn ñi am ñu def benn campagne pour dénigrer ixwaan yi dama tiit parce que ixwaan yi suñu génnee seen liggéey ci diine ji kenn du ko déggati kenn du ko déggati non non non non. waaw waaw ci la ñoom la bokk mu def as azlaal fi alquran ah seen xut bi ci ñoom la bokk ah, seen sëriñ mooy xasanul euh, banna donc borom xam-xam ci àdduna bi yëpp ci ñoom lañ bokk wala ñu ci ñoom loolu leen yàlla defal donc moo tax euh, donc dem ba fexe ba doo leen jàng. lu tekki lu dul ñàkk xam-xam dong wala ngay nëbbutu nga jàng bare weddi weddi na ci ñoom nga jànge <laughs> parce que loolu tam gis maa koy nemeeku gis naa fi ñu ñu ma ñu ma naw seen seen xam-xam nangu ñoo wax ne ñoo leen jàng mais ñoo leen jàng dañoo sàcc jàng leen ku leen jàngul doo xam ah bon loolu man loolu laa gëm boobu loolu laa gëm kon jumtukaay bi ngay def pour yaatal jàngale bi ci njëkk mooy téere yi bi ci topp mooy almujal alma almajallatu wal jaridatu mooy lépp luñ bind leneen lu dul téere comme journaux yeeg télé yeeg yaa ngi yeneen yeneen édition yi ci des yëpp yooyu itam ay bunt la ay moyen la pour yaatal euh, diina jàll ji waaye xataaba muhaadara durus alaama fi lmasajid wa fi mooy def xutba ci xutba jumaa yi nit mën na cee jaar Eh, jàngale diine ji conférence yi nit mën na ci jaar jàngale diine bind yi ñuy bind dars yi ñuy def ci jàkk yi ak yi ñuy def ci kër yi yooyu yëpp ay bunt la pour jàngale diine ji loolu mooy ñetteelu jumtukaay bi eh, xutba yi ak conférence yi Sénégal gi eh, niveau bi ñu am nii tey niveau conscience bi ñu am y compris conscience politique discours islamique moo la ko jox loolu mooy li waaw yàlla xam na ko do waxuma ko pour tiitaru parce que bon du man sax man bokk ma discours discours waaye discours islam moo ko def depuis aéroport depuis aéroport conscience bi Sénégal yi am maturité bi am ni yëguñ ko mais discours islamique moo leen libéré moo leen libéré parce que lislaam mooy may fit ah, ku gëmul diine du am fit ah, non c'est vrai ah, ah non non l'islam mooy mooy fit fit bi Sénégalais yi am léegi diini ji la discours islamique bi la ah. conscience bi nit ñi am xale yi fugga bi am responsabilité bi c'est c'est le c'est le c'est le leen libéré ah non da ngay boo xasee gëm yàlla dootoo tiit dootoo ragal parce que euh, tiit ak ragal li koy jur mooy defee ne mën ngaa lijjanti ba mucc mm-hmm. wala nga lijjanti ba ba te ba texe lu xam nga ne texe ak mucc kenn lijjanti du ko lijjanti moo tax da dangay daal di noppalu lu jot rek nga def ko lu jot nga def ko euh, xam nga euh, euh, président Gambie bi <laughs> Yaya Jammeh ku doyoon la ku bëri ay ay rëq-rëq yu mu def la ndax dafa gaawoon ci rey nit waaye ku dëgëroon loo si te ku gëmoon loo si koo dégg bi mu aayee xeesal ak mèche gars yi am benn journaliste bu fa ñëw di ko tiital naa ko est-ce que occidentaux yi duñ fi ñëw indi la keppara mu ne nañ ñëw nañ ñëw lan lañ man li gën a man ci mooy ma ñu rey ma après suñ ma reyee nag man su ma man maay kan ba du ma dee xam nga kooku kooku mënuloo ko dara Gaza fii ne problème Gaza bi problème boobu la Israël am léegi parce que kuy xeexak ku nangoo dee xam nga ki nga mën a napp ci xeex mooy ku bañ a dee ci xeex kooku nga mën napp mais ki nga xam ne dee ci ndam la moom kooku ëpp moom dee ci mooy ndamam wax naa ko fii wax nañ ko fii ay yoon saaba yi ridwanullahi taala alayhi ku ci masaane dem xare booy ñibbi da ngay parce que da nga naan voilà maa ngi nii raté benn occasion boo xam ne mënoon naa ci dem àjjana maa ngi nii di ñibbi te xaw ma ci lan lay dee oh, oh, oh c'est trop fort non te da koo gëm te effectivement xam nga dee ci xare dem na moo gën a wóor moo gën dellu kër gi kër ga boo fa delloo boo fa defaatoon ñaar téeméeri at da ngay dee dong te doo xam ci looy dee donc l'islam dong mën a defar nit nit ku équilibré l'islam dong ko mën a defar loolu nag la téere yi di jàngale yàlla yàlla may dégg ak doon salaamaaleykum